Mor Sène euh, ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum maa ngi leen di fay di nuyu ñi seetaan 7TV euh, yëpp. yow euh, nga ñëw tey fekkee kon événement mooy xew-xew bi di prestation de serment di mm-hmm. président Bassirou ay fay mu nekk ab loo xamante ne nekkul li ñuy gis saa su ne loolu la lay def. dëgg la journée bu exceptionnelle la parce que aboutissement wu benn lutte la pour la la consolidation de la démocratie bi nga xam ne. commencé woon na sooxee bi ñu fi ajee datu élection yi bi ñu fi jéemee ubbiwaat listu élection yi bi ñu fi jéemee tere ay candidat ñu bokk ba yàlla def tey ji ñu am élection yoo xam ne premier tour la parce que menacé woon nañu sax bu demee deuxième tour président daf fi bàyyi benn vide institutionnel yàlla mi dara tëwul ak askanu Sénégal comme un seul homme voté régler problème bi au premier tour ba tey jii le 2 jour bi mandat Macky Sall di jeex ñu war def presque serment alhamdulilah a gagné et c'est le peuple sénégalais qui est mature merci ñu ngi lay jaajëfal euh, Clédor Sène euh, gis nga fi.